mën dina ko def mais boo séqee ak ay góor ñuy góor ne yow lépp loo leen waxante wér na la ku nekk dina ko respecter et c'est ça qui fait que ñun amuñu difficulté aussi bien Yewwi que wàllu ci kàddu yi nu joxante ci nin ka na téye ndaxte askan bi la ñu jël tekka suñu kanam jël leen kam témoin askan bii nga xam ni tey danoo am yaakaar ci ñii parce que danoo dem élection ñu ni yéen ñaar yéen lañu yaakaar ni yi moo jël premier Yewwi yéen a jël deuxième Wallu yéen a jël troisième donc ginnaaw Macky yéen ñaar lañu yaakaar kon yéen ñaar ñi tey jii ni yàlla def na ngeen déggoo kon li ngeen déggoo exécuté leen ko loolu moo tax mu doon un plan inédit histoire politique Sénégal mosu fi am mos ko woon mën a xalaat déjà ñoo ngi commencé naan exécution bi day difficile am na kenn ku ma ko wax ni ma plan bi oui c'est bien mais exécution bi day difficile ma ni ko li li leen yàgg di dal mi ngi leen di dalaat mooy xeeb le génie des Sénégalais xeeb la compréhension des Sénégalais seen niveau de compréhension mi ngi leen di waaj dal boo leen foogee ni loo leen mën def au niveau de la direction générale des élections jaxase liste yi fu nekk ngeen teg fa bulletin lu nekk ngeen def ko dina tax sénégalais yi du ñu xam nu ñuy exécuter plan bi yéen a ngi juum encore le Sénégalais est un génie kenn nee na ma Sénégalais boo ko bipee rek xam ni ko am crédit la da wuyu ba mu saf-saf et leer nañu biip bi ñu leen bipee daan ci wuyu wallook yeew wi ba mu saf-saf parce que bipee wu kaay leen ñu defal réew mi la bipee kaay leen ñu arrêté président Macky Sall ci caaxaanam yi la bipee wu injustice bi fi am kaay leen ñu yëkkati ko. biipewu kaay leen yii nga xam ni teg na ko Karim Wade teg ko Khalifa Ababacar sàll nan ko fi yëkkati biipewu dund bi cher na nan ko wàññi biipewu tey jii nii askan bi sonn nanu nanu nanu arrêté loolu biipe boobu ku ko biipe sénégalais xam ni bare na crédit te foofu la plan bi nekk moo tax exécution bi amul benn difficulté d'autant plus que danu wax département bu nekk ak ki nga xam ni mooy porter l'intercoalition loolu lay tekki boo ñëwee Dakar intercoalition bi Yewwi Askan bi moo koy porter ndaxte ci biir liste Yewwi Askan wi da nga fay am ay candidats yi nga xam ni Yewwi lañu bokk ci biir même list ba nga am fa ay candidats yi nga xam ni Wallu lañu jóge donc ñooy nekkandoo ci liste bi de ce ku jóg voté liste boobu ñaari coalition yi nga woteel en même temps kon ku bëgg mbir mi yegg nga nekk wallu wala nga nekk yeewi wala ngay sénégalais bi nga xam ni lii ñu la biipe moo la ñor du ngay jóg rek dem woteel liste boobu nga xam ni mooy porte bannière ba kon li ci des mooy lan mooy chaque département ne sénégalais yi xam ban bannière ngay woteel donc c'est tout l'équation est à ce niveau l'équation est une équation de communication simple. Elle est vraiment simple. Vraiment, c'est une équation triviale, comme on dit en mathématiques. Elle est simple. Donc, wax ji mooy ah sëñ bi damaa bëgg xam Ndakaar kan laay tàbbil sama carte Pikine kan laay teb tàbbil jox sama carte Mbacké kan laay jox sama carte équation bi loolu rek la te loolu nag daanu teg un dispositif très simple avec le directoire qu'on va mettre en place nga xam ni ku ci tax boo door question nga am tontu bi aussitôt nga xam ni boo toogee ci sa kër yor sa téléphone boo sax laajee mu tontu la lële bi département bi ngay wote nga xam ni kon lu yomb la matérialisation bi amul difficulté parce que question bi réponse bi dafa yomb et noonu lañ ko dressé ci cinquante 54 départements yi bu may wax cinquante 54 départements mooy 46 départements à l'intérieur du pays ak 8 départements au niveau de la diaspora bu nekk rek nanu xam kan la ñuy woteel boo jëlee exemple Dakar région Pikine tout le monde sait que wàllu la d'ailleurs même li ñu envisagé mooy fu nekk bannière ba nga xam ni mooy porter la coalition foofu la ñuy def siège intercoalition bi cest di que leaderu ñaari coalition yëpp foofu la ñuy dajee foofu mooy doon siège bi fa la ñuy tàmbalee di fa def liggéey bi yëpp militants responsables yi sympathisants yi ñëpp fa la ñuy daje li nga xam ne on veut ça au niveau national ñoom it dans les départements ñu def ko pour mën amener les réponses ñi nga xam ni moom la leen sénégalais yi di poser comme question donc lu yomba matérialiser la am ngeen ici liste bi lii daa ngeen ko yóbbaale déjà boo leen gisee li jot a génn war ngeen xam fu ne kan moo fa ne te bu ñu waxee kan moo fa ne mooy kan moo fa nekkal keneen ka parce que loolu lay tekki maanaam Pikine wallu mooy porté moo fa nekkal wallook Yewwi loolu lay tekki et lii may wax nii cest à que ni vraiment intelligence su sénégalais yi comme ni ma ko waxee waa ji moo tax ngeen di juum rek intelligence sénégalais weesu na fi ngeen leen bëgg tey ji nii tënk téye leen fi te sénégalais yi daan leen bett parce que daanu dugg romb bulletin bi ngeen foogoon ni moom la ñuy jël dem jëli bulletin bi leen intéressé dugal bu ko defee am majorité dans dans ce département la et vous allez voir parce que ñàkk gëm seeni xam-xam moo tax ngeen di juum guddi ak bëccëg moo tax ngeen toll fi ngeen toll parce que ñoom dañ leen raw donc voilà un li leen bipe donc na seen crédit saf sap mat sëkk ngeen téléphoné ñu ba mu doy sëkk loolu mooy li nga xam ni moo fi nekk ci plan bi donc daal leen ko définir wax naa ko léegi y une organisation avec donc ñaari coalition yu nekk di définir dina génn yàggatul li ci des nag mooy li président Habib wax léegi gis ngeen li fi xew yëpp gis ngeen pexe yi fi am yëpp mais jàmm bi ak bëgg-bëggam suñu boroom ak dogalam loolu le président Macky Sall umpule jaam bi ak bëgg-bëggam suñu boroom ak dogalam dogalam mooy lii am na dogalam mooy lii mënu ko téye dogalam mooy askan bi du seetaan mu téye lii dogalam bi mooy askan bi dogu na ci lii dem loolu mu comprendre que baax na bu ko comprendre lu aussi malheuram la malheuram la tey jii waroon nañu am un grand rassemblement populaire à 15 heures la waroon tàmbali gis ngeen la ca xew dañ ko dugal ci lendemain ba ñu wooñu ni am na ñi nga xam ni ñoo ñoo ñoo ñoo demandé woon avant xam nga bu ñu neexoon tey tey quinze heures place bi fees dell moom leer na ko bu ñu neexoon 15 heures place bi fees dell mais ñu ni nañ koy yóbbu le mercredi le mercredi mu bëgg ko ak mu bañ ko dañuy manifester. dama bëgg loolu aussi mu leer naa ñu ci bopp sénégalais parce que moomul réew mi ëppale wu ñu fi ay mbokk ëpp ñu fit te fi ni réew mi toll ñun xam nañ ni tollu ko fa parce que le président Macky Sall li nit ñi xamul mooy ñi toog ci taabal bi nii li ñu jot def yanu ko pour sénégalais yi moom jotu ko def jotu ko yanu pour sénégalais yi il n'a pas fait de l'opposition xam ngeen li ma leen wax yéen a ko yéen a ko meññ deful opposition yéen a def opposition bi ñëw nguur mu fekkee nguur jël def trois ans ñëw pouvoir bu gëmoon yàlla dina xam ni kon yàlla rek moo fi ne du topp nit ñi di leen teg lu jafe du topp nit ñi bëgg wan nii dafa am pouvoir bi nga xam ni nit amu ko donc moom amul lenn lu mu jot leen teg peuple bi en terme de patriotisme moo tax mëni fi ni réew mi toll tollu ko fa parce que amul parcours boobu amul jaar-jaar boobu dafa génn def trois ans d'opposition bi nga xam ni kenn xamul woon sax day ndax day opposé wu ou pas après ñëw jël nguur moo tax xamul xamul mais ñi nga xam ni boobu ba tey ñoo ngi ci wetu askan wi di naaj naaj wi di naan gaz lacrymogène yi xam nañu ni kii opposé wul te xam na ñun suñu patriotisme fi mu toll moom bosom toll fa moo tax na taxaw parce que bu taxawul daan ko taxawloo donc na taxawal boppam loolu mooy li gën a woyof mooy li gën yomb ci ñëpp démb dellu nanu dugal nañu mémoire en défense après bi ñuy dugalee recours ci décision bi nga xam ni sénégalais yëpp wér na leen lii moom c'est pas du droit ku jàng droit xam nga ni lii du droit ku jàngul droit xam logique sa bopp am lu ci nàcc xam nga ni lii moom yanuwul maanaa mënul tegu ci lenn moo tax ma ni xëy na lii droit jomique la parce que lii du droit bi ngay bu ñuy enseigner ci université du droit bu ñuy enseigner fenn et réew bu demee ba fa nga xam ni yaay jël di teppi di xotti ca nam la arrangé réew moomu nekkatul ci nekkatul ci yoon réewum yaa ma neex la mais introduit nañ des mémoires en défense et je sais que les sages n'ont pas un autre choix que celui de faire revenir la liste nationale proportionnelle titulaire de Yewwi Askan amuñu beneen option boobu option rek la am te loolu tekkiwul que daanu rattraper la liste nationale suppléant de Benno Bokk Yaakaar tekkiwul que Benno Bokk Yaakaar dafa war bokk élection parce que lii tax a li lii du lenn lu dul rattrapage ku nekk xam na ni doublon mësul doon objet de rejet d'une liste au pire des cas au pire objet de rejet de la candidature mais jamais d'une liste et moo ko gën a xam quiconque que ce soit amul mais comme ñoom am nañu des difficultés de benn ci excès de parrain bi deuxièmement ci li nga xam ni mooy le respect de la parité ñu def tout ba kenn gis ko ñi nga xam ni ñu contrôler ñun direction générale des élections génneel ñu avant même ñuy wax sunu non respect de parité à Dakar ñooñu ñoo yor dossier bi pendant presque dix jours mënuñu sax gis loola ca ne bu ma ci gisul woon loolu tey jii nii xëy na coow li sax du am donc loolu lay jéem a rattrapé moo tax mu gàlluñu li nga xam ni leer na ni lii mënul doon le motif pour rejeter une mais loolu ñoo ngi koy suivre wala am taxawaay bi ci am di demander sage yi ñu réparer loolu rapidement te xam ni bennoo Bokk Yaakaar moom mënul kon jëm ñu gàll yóbbaalewu leen loolu aussi il faut mu leer naññ ci boppu sénégalais yi maanaam ci tënk lii laa amoon lu may wax ci plan bi daan leen ko envoyé ku nekk ci sa mail dina dugg tey partout ci Facebook bi plateforme électronique daan ko teg bi nga xam ni ku poser question ñu renseigné wuñ ci mu renseigné la kon tey jii nii ñi nga xam ni ñoo ngi sous-estimer l'intelligence des Sénégalais pour la mise en œuvre de ce projet je reste persuadé qu'ils vont déchanter bientôt kon biipe nañ leen ne crédit bi mat sëkk ñoo ngi leen di xaar président Ababacar Sall mu ngi toog di déglu lu bi ak le président Abdoulaye Wade ñoo ngi leen di gërëm di leen sant bu baax a baax jërëjëf. merci président léegi ma jox kàddu gi l'honorable Abdou